manam Senegal dafa wara a jaar dafa wara tan kenn ki muy denk batam dama ne kenn ki muy denk batam la Senegal wara tan koku nak man ma am ci sama candidat candidat bo xamne ma sax bala officiellement président Macky Sall diko ko man jappon na ne mom la wara don muy le premier ministre futur président de la République Amadou Ba ma gem ne tay fi Macky Sall yobou Sénégal te Sénégal amal le président Macky Sall ndax nag bi muy ñëw ci c'est un profil intellectuel c'est aussi et surtout un projet qui est décliné moi je connais mon projet man xam naa sama projet muy plan Sénégal émergent Je ñu permettre tey soo demee tey Fongolembi bu ñu la tali pour yegg foofu dañ koy am loolu moo leen permettre waa Salémata ñi nga xam ne gis tali indépendance ba tay tay 85 km salimata ba kédugu tali la lol moo tax ku jógee salimata bo feebaree da nga dan dem ba tambakunda tay da nga yem ci hôpital amad dansoko bu kédugu lol mo waral tay bo démé touba la fa né ci infrastructure en terme d'université hôpitaux yu bess tali yu bess assainissement loolu président Macky Sall ko def moko def fep ci réew mi soppi xar kanamu gox yu bari ba ñun ci département bi ñu indi lu jam ñaajo mais néna lolou Amadou Ba nag fi ma koy xaar mooy président Macky Sall indi na jam ñaajo def na fi lu bëri waaye li wër jam ñaajo Amadou ma dafa war a suqali loolu mooy sama taxawaay ci wetam di ko jox sama xalaat parce que man du ma ànd ak nit te du ma la jox sama xalaat ku ma àndal dama lay jox sama xalaat loolu mooy xalaat di ma ko jox donc ñun dañuy woo xale yi di wax ak ñoom ma kontaan trop ci li ma fi gis tey ay xale parce que politique tànnu njiitu réew du affaire u guerrier xam nga da ngay dem ca làmba ja nan kii guerrier la qui guerrier non non politique du affaire guerrier politique affaire dal affaire xam-xam la affaire vision prospective la te les qualités, ne qualité Amadou Ba am na Amadou Ba Doko ko Amadou Ba Doko que les gens arrêtent ces histoires de division ay histoire de leadership amu fi dernier. on n'a pas besoin de chefs kon nous, nous ànd dans une dynamique unitaire parce que le défi c'est un défi collectif buñ ko demain on sera tous comptables des résultats tey boo xoolee àdduna ñi une monnaie locale C'est une économie qui nous ko permettre monnaie am c'est parce que da ngay une économie bu dëgër nga une forte capacité productive boo jaayee di nga exportée, a exporter une exporter da ngay devises, devise loolu dafay renforcer sa monnaie nationale mais nous, c'est une économie nous li viser le marché de la CDAO, aller même plus loin que le CFA dans l'espace IOMOA. essayer d'aller plus loin avec même une monnaie CDAO, avec un marché de 350 millions d'habitants c'est ça aujourd'hui les grands ensembles suñu économie dañu converger avons am principe de libre circulation des biens et des personnes monnaie locale nag danger bi ci crise économique internationale am tolluwuñu foo xam da nga naan damay indi vice président dégg naa sax génn nañ ci loolu nee nañ prochain mandat vice président pour lan vice président loolu symbole régime présidentiel foor la foo xam ne amul ay premier ministre bu fekkee ne nag ñoom dañu bëgg a ndërmeel doole assemblée nationale indi ñu ci régime présidentiel fort buy ndërmeel dooley assemblée nationale loolu mooy indi ay vice présidence